réew mi bu Touba génn na si te tegteekaral bi ne kat temps de grâce bi jeex na jamono ji nag jot nañu wax ak autorités yu bees yi ñoom na dinañ ko def ñu ni si njëkk ak tiranga di veiller di alerter teg ko si démocratie waaye lañu jàpp mooy déception totale doon am Omar Gueye ak ñamu àndal ñëpp mu di jigéen ñi ak jeunesse ba ñëpp daal benn gisin boobu lañu am jour yi Diomaye def na ko ci le président Diomaye def na ko ci réew mi mooy euh, euh, d'abord sama xayma man ci benn rek laa koy tënk mooy daf ñoo présenté woon benn dañ présenté woon benn projet depuis dix ans ne su ngeen ñu falee pare nañu ba bindu livre ñu falu ne projet bi pareegul lu pareegul nag man gisuma ci lu ñu mën a doxal loo xam ne mën naa cee tënk ab xayma foofu rek laa ci yem. il faut changement am ndax changement bi nga xamante ne ni moom lañ fi gars yi fi nekk dige ba tax xale yëpp jóg taxaw ba def ko suñuy doom ñëpp jóg dem defi ko. ba san leen ko loolu dara amu ci dañ leen a nax jaar ci seen bopp yi jàll ba tax na lépp ñu ngi koy regretter. ndaw ñi moom dañ leen a nax dañ leen a nax bu baax a baax a baax te it gis nañ ndax ñu bari réccu nañ xam nga jamono yi ci ginnaaw ñi ngi dégg président ko mu ne ndaw ñi diis na leen financé mais ay ndaw boo leen financé te te te formé woo leen lan lay jariñ tàbbal leen ci gudda lay def. tàbbal leen ci guta lay def vraiment ñun daal ñu ngi woo ndaw ñëpp ñu ñëw engagé wu ci côté président Idrissa Seck. ma il faut que ñu booloo pour mën a gañe gars yi parce que gars yi dañ leen naxoon rek lii fi jaaro ñu bari regretté nañu fi mu ne loo gis mouvement réccu yaa ngi bëree bëree bëri surtout au côté de côté la jeunesse ñoom ñëpp a taxaw ne réccu nañu suba yow boo suba suba suba boo taxawaloon liste da nga leen di gañe nit ñi yow la ñuy àndal ñii moom pare nañ réew mi kat dina gën a am ancrage si biir opposition bi naka noonu dinañ jéem a booloo ngir nag renverser la tendance comme ni nga ko waxee seen kàddu. politique moom lépp luy dox mbooloo koy doxal te comme dañoo am suñu kilifa di ko déglu xaj na ñu ngi koy déglu moom ba xam fu mu joxoñ rek ñu jëm foofu ndax mbooloo moom li koy indi mooy ñi ci base bi liggéey boo liggéeyu tamit doo mën a am mbooloo te jàpp naa képp kuy responsable nekk ci parti mi xam nga la lay xaar. liggéey pour jotaat ci mbooloo mi moo ñuy xaar te defe naa ci lañ nekk. bu dee si wàllum inondation yi am Touba ndox mi bare loolu moom Oumar Gueye jàpp na ni kat nguur gi vision bi dafa des waroon nañu kat bàyyi xel ni xam ne lii dina ñëw ñu mën koo fànq ndax li tax ñu fal leen loolee bokk na si mu ni nag fi ñu toll nii daal li ñu wane daal moom xel daal tey na. ngi masawu askanu Touba ci li nga xam ne moo fi am ci mbënn mi nga xam ne si ne am na fi mu doon loo xam ne ñoom comme ni ma ko waxee rek ci seen programme bu fekkoon ne waajal nañu te xam ne événement bu toll ne événement Magal Touba dama waxul Touba rek Touba dama jëlal dëkkub Touba rek nga xam ne position bi mu taxawee ci Sénégal nga xam ne lépp looy def danga ko war a sóoraale waajal ko rawatina nag lu mel ne inondation lu mel ne ñu ne màggal gi nga xam ne day am Touba at mu nekk ñu ne fukki at yi ci biir ci biir nawet la koy fekk kon jàppoon naa ne ñoom bi ñuy ñëw rek comme fekkoon nañ fi déjà loo xam ne mi ngi doon dox max état continuité la ñoom seen xel ca lañ kii rek waroon nañoo mën a am taxawaay boo xam ne si ne inondation bi du mën a du am de waaye war nañ cee mën a taxaw taxawaay boo xam ne si ne danañ xam ne ñiikat taxaw nañ. dama ne la état continuité la ñoom bu fekkee ne sax donte seen programme ñoom dañuy door a jël waroon nañ am matuwaay goo xam ne si ne pompe ay pompe ak yooyu waroon nañ ko mën a waajal nga xam ne si ne bu amee rek sur le terrain parce que première pluie bi nga amoon rek lañ gisoon ne lañ gisoon ne fii moom waratuñ doon lu ñuy waaj. mais nag toog ba deuxième pluie am ba ay deux cent maison di génn seen i kër loolu te gisuñu lenn loo xam ne si ne luy firndeel la ñoom ñi ngi ci pour saafara loolu loolu vraiment euh, je suis désolé mais gisuñu ko daal en tout cas. ginnaaw élection présidentielle yi nag bii mooy seen njëkk sorti ña ngee nag dalal xel yi nekkat dinañ yóbbu réew mi foofu nekkoon ànd seeg seen leader ak engagement bu mat sëkk.